internet yi ñu ngi taxaw ak abu Salla abu Salla Diéré moom jàpp naa ne Sénégalais yëpp xàmmee nañ ko Abou maa ngi lay waaw soxna si maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di la nuyu di ñi nga àndal waaw. ñu ngi la fekk tey Thiès ci concert bi nga xamante ne moom la Sidi Diop di amal tey alors tey lan nga ñu mën a wax rek ci loo xam ne préparé ngeen ko Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw tey ci concert. waaw tey moom dina neex dina yàgg incha allah ndax am naa yaakaar ne Sidi gëjoon na Thiès te waa Thiès namm nañ ko te xam naa ne moo leen raw incha allah tey eh, concert ay surprise yu bari dina ci am bu neexee yàlla incha allah waaw. ab yaa programme le bi ñu dëgg man. waaw le 3 janvier nag incha allah sama anniversaire lay féete Kaolack nangaan di ma juddoo yaroo fa màggee fa ñu ràññee ma fa eh, ba tey fu ma mënti taxaw rek drapeau Kaolack laay yëkkati ndax ñun Kaolack lañu am waaw Kaolack lañu am moom la ñuy tiitaroo fa la sama papa ne fa la sama yaay ne. maa ngi leen di nuyu ajaratu Daba Diop sama yaay ji alaaji vie sec di nuyu nag sama waa koñ ndar gu ndaw maa ngi nuyu kaw la gépp nag. bi mooy bi wala. waaw c'est la première fois ma def ma defee ko Kaolack waaw sama anniversaire yi yëpp Dakar laa ko doon def Dakar laa ko doon fete mais nag ren dama ne pourquoi pas fa ma dëkk yaroo fa pourquoi pas mënu ma dem bëggal leen xam nga. Euh, waa Sidi sama jumeau mu ngi ci guddi gi incha allah. waaw mooy sama lan la di waaj suba moom li ñuy waaj bari na waaw li ñuy waaj bari na trop waaw gis ngeen barki Demba Ndiaye rek affiche su Zénith bi waaw affiche su Zénith bi gis ngeen ko ak yeneen ak yeneen suba teel ñu ngi waaj yu bari waaw. mais coow li bari na jamono ji yéen ñi nekk ci biir suba teel noo leen di dundee coow lu bari. ah coow li moom coow moom yàgg na ci showbiz mais ñun moom ci liggéey bi lañ gën a fukkis xam nga yi moom da ngay liggéey rek lu bari wax lu ndaw parce que nag yàlla gis na lépp kuy liggéey ak kuy war di wax weer bu dee mënuñoo mënuñoo mënuñoo tolloo waaw ñun liggéey bi si lañ gën a focus te nag affaire yi moom waaw wax ji warul bari liggéey lu bari wax lu tuuti waaw ñun foofu lañ nekk quoi. amu noo leen di dundee yenn manque manque manquant yi ci seen ci seen ay danseur seen danseuse gis nañu ñu bëree bëri jamono ji ñi ngi rocceeku di dem Ramadan ñi di rocceeku di dugg ci biir Wally Ballago Seck quand même noo leen di dundee loolu ak coono. waaw mais mooy li ma wax léegi rek xam nga tey ji ñun moom ñun moom euh, niñ ànd ak Sidi niñ ànd moom suñ borom gis na ko te ñun moom euh, dara du mën a tax. bu neexee yàlla dara du mën a tax incha allah ñu dem ba ko gannaaw ci àdduna waaw parce que niñ àndee la xaw ma nag ñeneen quoi waaw xaw ma nag xaw ma nag ñeneen parce que nit moom nit moom mënoo assurer ñeneen ñi mais man moom sama jëmm ji man si sama jëmm ji niñ àndee mag moom man jomb naa xëy di def leneen ak naka su dul noonu moo koy def parce que man yarewuñ ma noonu te bokkuma ci famille bu mel noonu waaw ñun moom waaw noonu la ñuy doxee quoi waaw. mbetteel ci demu njàpp. waa mais njàpp njàpp njàpp sama rakk la man njàpp sama rakk la man ci ñi ko andi ci groupe bi ci laa bokk new ma maa ko fi andi de mais ci ñi ko ci andi yaatal ko dama cee bokk ndax sama rakk la. sama rakk la yaayam bi ko jur mook sama papa dañ doon sëy ñàpp sama mag mu ngi seen biir kër sama la sama deret la mais dama ne àdduna na lépp rafet njàpp suñu rakk la te dafa am fu ko sii di jëlee xam nga àdduna moom dëgg du rombi nopp dama damay wax rek te yàlla tax waaw man je comme ça man wax ju bari sax mëneewu ma ko man wax ju bari mëneewu ma ko parce man lu may wax lu nekk rek daf may leer te dama koy maîtriser. waaw waaw waaw te man li may wax lu nekk rek dafa may wóor te li may wax lu nekk rek boo ma laajaatee suba ma wax ma dellu ci moom dafa am fu ko di jëlee te dafa am tamit fu ko sii Sidi andi kon nag àdduna dara warul tax muy ñaaw na lépp rafet parce que ñoo bokk lépp ni lépp day jeex barki sëñ Fallou man àdduna gisuma dara lu may jaral may def lu ñaaw wala lu may def sama nawle xëy suba di ko gis di sëgg du am dama bëgg fu ma la gisee siggi parce que loolu mooy àdduna àdduna dara yàggut waaw dara yàggut barke sëñ Fallou na lépp di rafet waaw àdduna mu solo. bu dégg say wax dafa mel ni danga nga bëgg a wax ni njàpp dafa war Sidi Diop ndax wax nga ni tey euh, moo ko jëlee fu bari moo tax sénégalais yu bari xam ko aussi. waaw mais si dëgg mën mënta bi nopp dëgg mënta bi nopp tey ji njàpp bu demee ba passeport am am visa. yàlla suñ borom ci loxo Sidi la ko jaarale bu demee ba dugg Europe ñu àndandoo mu wër mu wër maanaam yenn dëkk yu bari yàlla suñ borom daf ko jaarale ci loxo siidi parce que suñ borom mooy doxalee noonu ay mbiram ku si nekk lim lay jox dafa am fu mu koy jaarale dëgg nag noonu tooro mi nopp moo tax ma ne dafa am fu ko Sidi jëlee am fu mu ko yóbbu waaw te loolu man leer na ma te teg naa ci sama bët moom xam na li may wax.

di nga toll moment boo xam ne parfois buñ lay conseillé sax da ngay jàpp ne kii di ma wax di dafa bëri wax wala nangam sangam te waaw am na fooy toll rek après dañuy toog rek déglu la di la xool parce que àdduna moom waaw euh, du ma wax léegi rek dara yàggut waaw dara yàggut te léppay jeex affaire yi daal warul ñaaw ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi barki sëñ Fallou lépp rek dafa war a nice yeah noonu la demee ñoo balaa ñoo tàggatoo moom magu ki nga xamante ne moom mooy njàpp la le fait que njàpp ni mu doxalee ak yow mi nga xamante ni nee nga dugaloo ko biir suba teel ma bokk nga ci ñi ko dugal amul noo xamante ni def na la nga xamante ni frère am amul noo xamante ni def na la ko ci biir suba teel yow mi nga bokk nga ci ñi ko dugal biir suba teel waaw jamono amul num la def yow ah mais si si parce que bëggeewu ma ko nii bëggeewu ma ko nii gémmañ bu waxul dëgg wax fen bëggeewu ma ko nii parce que tey ji njàpp xale la njàpp xale la li ne ci kanamam daa bari barki sëñ Fallou nit boo dee xale danga nga war a da war a dal yàkkamti baaxut yàkkamti baaxut ci dara àdduna tepp tepp rek a gën yuréet xale la te masala li muy def mën na ko moom li muy def da mën ci li muy yëngu mën na ko may lu ne mais nag dafa am loo xam ne nag gëm-gëm la li nekk ci njàpp new ci man faut pas que ma bëgg a forcer ne li ci man day ne ci moom far force parce que nit yëpp yemuñ waaw nit yëpp yemuñ. bu ñu leen jàpp gisul woon boppam ci biir Subatel ndax bëri na lu mu daan bëgg a def daawu ko mën muy tabax ak dimbale ay waajuram waaye koppar yi mu fa doon gañe tax na mënewul li ni mel est-ce que Abou dafay dëggal loolu. waaw loolu loolu loolu wax du yàqu la wax du yàqu la man wax naa ko waxati ko Euh, ñi xamut rek xamuñ àdduna ku xamul rek xamut mais barki sëñ Fallou fii ñu nekk ñun ñu ngi ciy gis suñ bokk bu baax lépp lu suñ naw di am ñu ngi koy am barki sañ Fallou man du ma génn mukk ñee sama benn nawle barki sañ Fallou fu sama nawle di tëdd fu baax naa fa tëdd li sama nawle di am lu baax dinaa ko am fi ma nekk doy na ma te li ma soxla ñu ma koy jox te damay wax te yàlla rek tax waaw man du ma waxantu man wax ju bari sax mëneewu ma ko barki sëñ Fallou man da nga may oo sax ne ma dañoo bëgg dañoo bëgg dama bëgg ñu def émission mais dama naan la d'accord après xam nga yaa ma gën a xam parce que wax ju bari ji nit dangay ngay si sa liggéey ak wax ji doon lu ndaw. mais Sidi naka lay dundee moment bi li xew nii parce que mën nañoo wax ni metti na perte ku mel ni Ndeye Ndiaye Banaya euh, naka lay dundee vide boobu jamono ji. waaw mais mais mais adduna moom moom moom dañuy toog di waxtaan damay damay dañuy toog di waxtaan ma ne gis nga aar moo doy waar. aar moo nekk loo xam ne sóoraale lépp bu la dara bett. non non non non maanaam waxin fi ma waxee mooy aar man mii sax dara waruma bett parce que fi ñu nekk milieu bi nekk la milieu bi nekk la man dara waruma bett yow dara waru la bett sa life xalaatal ne suba lu ne mën na am man foofu laay waxee yow suba xalaatal ne lu ne mën na am sax àdduna moo demee noonu jamono jii ñuy toll parce que. maanaam euh, fidèle moo yombatul fidèle yombatul mais nag ñiy fidèle ñu ngi fidèle ba léegi mais nag yombut ànd ak nit rek te yàlla tax moo yombatu ci jamono ji waaw am na ñoo xam ne nag dañuy ànd rek te yàlla tax barki sëñ Fallou. mais est-ce lii du revanche parce que gis nañu ku mel ne am na tuut xamante ni euh, demoon na ci du boobu moo ñëwaat tey ci kaw jàpp. déggoon nañ ku mel mu wax ni signé na ku mel ni am na ci Pape Diouf. non loolu moom wax dëgg yàlla suivre ma ko quoi vraiment. vraiment mais est du revanche. non ban revanche fii fii fii guerre guerre amu fi. yéen a ngi guerre nag. non non non non ñun ku ne ci liggéey rek lañ focus waaw ci suñ liggéey lañ focus nekk suñ liggéey di liggéey lu bari di wax lu ndaw fii àdduna mu solo ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo far fii fii dara ñaawul lépp mu ngi nice. waaye déggoo ma ne dama ne la man daal li ma la dama ne la man ak fi ma nekk ñu ngi liggéey niñ ko war a defee. te ñu ngi koy doxalee noonu waaw man daal man loolu laa wax. waaw mais déggoo li ma la wax dama ne la domaine yow domaine yooyu yaa fay dugg mais man ci li ma laaj li ma maîtriser wax naa la ko am na domaine yoo xam ne moom waaw mënu ma ci sori quoi parce que maîtriser wu ma ko am na domaine yoo am na domaine yoo xam ne moom du ma ci sori ci li ma laaj. tontu naa la ci li ma maîtriser wax naa ceeg yow sama artiste bi nga ma laaj wax naa ci moom parce que li ma xam ci moom lu baax la lu rafet nit ku baax la Sidi barki sañ Fallou nit ku baax la parce que mbaax la ma wan ak ngor ak teraanga waa dëggoo ma waa fii ku si nekk libre nga wax lu la neex adduna bii mënoo koj nit ñu ne leen ne leen euh, maanaam da ngeen di noppi ku dañuy waxtaan ku si nekk yow libre nga wax lu la neex mais man nayu Sidi gisuma ko Sidi ñi nekk moom ministère yi nekk moom nayam gisuñ ko ñi mu war a dimbali mu ngi leen di dimbali barki sëñ Fallou ñi mu war a jàppale mu ngi leen di jàppale te xale la nekk ci yoon doon jàmbaar c'est pas évident lii nii yombut sii di xale la sii di maanaam bu ma yoboo ne moo mujjee ñëw ci aar bi mais dafa am loo xam ne mayu yàlla la suñ borom mooy xool lu ko neex mu def ko yàlla mooy dogal waaw yàlla mooy dogal aussi dafa am famille am yaay am papa te ji ay famille dañ koy yaakaar muy xare nag nekk ci yoonam di jàmbaar mais gis nga ñun faut pas benn benn ñuy ñuy ñuy ñuy ñu maanaam ñuy ñuy ciblé nit rek di ko waxal loo xam ne nekkul ci moom mais nag loolu ñun mënuñ ko bañ parce que ñun ay doomu aadama yu xeebu lañ sagam ñi gën gën gën gën ñu ñoo amoon loolu sàkkamtuma laa ñun ñi nga xam ne duñ dara ay doomu aadama yu xeebu lañ duñ dara ñoo gën a xeebu ci doomu aadama yi barki sañ Fall loolu mënuñ ko bañ mais nag loolu lépp ngëneel la féex la waaw. est-ce que yéen ay artistes yi génn waxtaan. waaw ñun ci waxtaan ci waxtaan lañ dëkk ñun dañuy waxtaan ñun ñooy nekk sakku sakku ñun ñun ñooy nekk ñooy nekk dama ne. c'est que yow domaine yi nga may laaj man sama domaine lu waaw xaaral rek waa da ngay def nag sama domaine lu liggéey sama domaine musique nga ma laaj tontu naa la ci mais dafa am domaine yoo xam ne maîtriser wu ma ko. kon du ma ci mën a sori te du ma ci mën a wax voilà. alors que gis nañ ni bu mu yéegee foofu noonu gars yi bëri mu ngi ne dafa defar projet mais gis nañ ko ñëwaat na ba gars yi kiwaat ko ba mu ñëwaat si li nga xamante ne moom mooy répétition si si niveau mais dafa mel ni gars yi dañoo dégg ñu ne dafa ñëw yéeg ñu nekk di ko doyadal foofu noonu ba loolu gën a yokk xam mais kan moo ko doyadal si si si li ñu dégg waaw kan la ci li nga dégg kan la quoi kan la cité Euh, non même pas. gars yi non non non non même pas gars yi nañ bàyyi loolu. non non non non nañ bàyyi loolu loolu nañ bàyyi wax yooyu. nañ bàyyi wax yooyu jàpp suñ doom la jàpp suñ doom la te suñ rakk la jàpp suñ doom la te suñ rakk la te kuñ kuñ bëgg dañ ko bëgg jàpp moom xam na bu baax fi ñu ko teg moom xam na ko jàpp xam na gaa yi wax rek mais xam na. xam na fi ñu ko teg jàpp suñu doom la jàpp ni koy fayee ay bakkan ak ay kii non non fi mu demoon ak seen bi benn la fi demoon ak suñu seen benn la parce que parce que waaye dañuy waxtaan dañuy déglu ñoo bokk lu ñuy def ñun musique la ñuy def wala misikuñ non ban guerre yaa gis loolu rek. guerre bi yaa ko gis rek yaa yaa gis guerre bi rek ñun doxuñ sax ci yooyu. yee dégg jaajëf merci beaucoup.